candidat y a un séeréer qui s'appelle Diomaye Faye waaye nag ñun tànnuñu ndax xeet pour Sénégal Sénégal kenn du ko caaxaane bi ñu war a tànn bu ñu ci def benn parparloo bu ñu ci def benn affaire u mbokk wala xarit wala dëkkandoo dañu jiital Sénégal jiital yàlla ci li ñu def xam ne Sénégal waruñu ko dénk ñoo xam ne seen i loxo parewul yor ko le Djegem a fait le meilleur choix le choix de raison le choix du progrès dans la continuité et la poursuite du plan Sénégal émergent le choix pour la compétence puis le parcours énorme pour ne pas dire immense du candidat Amadou Ba qui a le seul il est le seul candidat à avoir ce parti notre choix est objectif parce que ici alors que vous étiez ministre de l'économie et des finances, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, vous avez permis à Tchadjaï d'être une commune émergente, à Sanyara d'être une commune émergente, Ficelle, Sessène, Nguyen, li ñu manqué woon yëpp am nañ ko. muy ndox muy courant muy école muy centre de santé muy case de santé muy poste de santé naam am na lu bari lu des li ñu gëm. mooy bu ñu continuer di mettre en œuvre le plan Sénégal émergent te ci candidat kenn gëmu ko xam plan Sénégal émergent ni ñu ko tënkee. le candidat le cinquième président de la République du Sénégal. te bu soobee yàlla le 24 mars on vous annoncera la bonne nouvelle. en tout à Dieguem que vous avez été élu dès le premier tour avec au moins jógee fii dem Ndakaaru jafetul. li des mooy fexe ba fi amee entreprise xale yi di ci liggéey ndax je vais le président l'emploi des jeunes am na yu bari ñu def ci courant am na yu ñu def ci ndox mais fii ak ñaari at dootul amati doomu Sénégal doo xam ni di foo xam ni amul courant wala amul ndox ça va être la déclinité emploi topp ci bi ma wax léegi jàppale jigéen ñi maa ngi rafetlu seen mobilisation Kumar Kumar faw ñu gën a jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi lu ñu am ci kër yi lañ koy yóbbu faw ñu gën leen a jàppale maa ngi nuyu sant di leen gërëm